Bakary Domingo Mané ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Jacques. taskatu xibaar nga di ko tàggat yi tamit ngay jàngat di gëstu ci wàllu politique tey jii gouvernement bi war na soumettre projet de loi naka la ko njiitu réew mi digle euh, loi d'amnistie générale euh, jagleel ko li nga xamante ne moo fi jotoon a xew diggante deux mille vingt et ba bis ni ki tey lan nga jàpp ni moom la njiitu réew mi Macky Sall di wut ci projet de loi boobu. je pense que projet de loi amnistie générale bi. dafa bëgg a um, nit ñoo xam dañuy takk euh, si leen depuis deux mille vingt ba léegi ñooñu ñu effacé leen seen jéy parce que boo nee deux mille vingt et amoon na lu fi xaw donc ay manifestation amoon na fi xale yi ñu tiré leen seen balle à réel euh, faatu leen donc euh, nga ñëw encore deux mille vingt deux mille vingt quatre donc gis nañ ko même tout récemment tamit am na ñeenti xale yi n'est-ce pas ñu boom donc ñoo ñëpp euh, su fekkee amnistie am na ça veut dañuy effacer loolu yëpp seen waajur du ñu xam kan ma leen boom donc euh, kenn du si wax dara dara dara mais rax si dolli sax boo boo jëlee loolu da ngay jëlaat affaire crime économique maanaam wa gis nga wàllu Covid boobu les mille milliards ñoo xoon euh, fan la fan bëgg enquête bi commencé et consort hmm. kenn xamul mbir bi fan la toll donc ñooñ ñëpp boo ne amnistie dañuy effacer loolu yëpp vraiment donc moo tax affaire amnistie dafa doy waar parce que euh, imagine ay père de famille mère de famille yoo xam ne seen doom dañu leen boom ci affaire bi ci manifestation yi ba léegi ñoom xam ñu ko leen ku ko boom xëy na ñoom bu ñu xamoon sax à la mun nañ def le deuil c'est-à-dire mun nañu baale. Hmm. mais ko ba léegi ñu ut kan moo def loolu seen seen ne doom amuñu réponse bi yow nga andi benn lutte loi d'amnistie nga ne loolu dañ koy effacer lépp. donc euh, non seulement y a problème n'est-ce pas famille yooyu mais même les droits de l'homme ñooñu du ñu d'accord n'est-ce pas si démarche yu mel noonu amnistie mun nañu ko def si beneen fànn mais pas fànn boo xam ne daal nit ñi dañuy boom volontairement ay xale ah, wala euh, ak ñoo xam dañuy détourner xaalis réew mi moom loolu la ñuy les crimes donc loolu war ñu ko baale kenn parce que réew noonu lay doxee. Hmm. il faut que ñu am ay responsable c'est-à-dire que boo posé acte nga nangu ne yaa ko posé bu boobaa mun nañu euh, pardonner mais jaar si loi d'amnistie man li ma gën a yéeme sax si mbir mi mais un président en exercice moom <laughs> normalement c'est-à-dire loi d'amnistie ngay gis nii yëpp yëpp mais euh, c'est après la ñu ko war a kii hmm. c'est-à-dire que le prochain président hmm. mun na jël loi boobu xëy na baal ñëpp mais pas que lui en étant en exercice di euh, andi loi bu mel noonu man daal euh, comme sénégalais yu bari vraiment seen xel dafa tey si mbir mi finalement on se demande président kan la bëgg a aar ah est-ce que réellement wala euh, dafa bëgg a aar est-ce que lu ko soxal mooy la paix de ces pays maanaam vraiment voilà la réconciliation comme ni mu ko waxee est-ce que est loolu moo ko soxal wala am na lu ci la xasu waaye mm. euh, ndax yaakaaroo tamit ni euh, euh, projet de loi bi bu antoo opposition bi ku ci mel ni Ousmane Sonko ak ñoom Bassirou Diomaye fay mën nañ cee jëriñoo. waaw mais sama xam nga problème bi foofu la nekk c'est-à-dire que loolu la ñuy wax ku la ne Ousmane Sonko loi d'amnistie bi dina tax mu génn prison ku la ne tamit Diomaye fay loi d'amnistie bi dina tax mu génn prison ak yeneen prison ñu génne prison kooku waxul dëgg parce que loi d'amnistie du nit lay viser. c'est-à-dire que fait man jëyi hmm. donc yow naka nga mun a waxee ne que Ousmane Sonko mbir bi daf koy laal wala mu laal euh, Diomaye alors que be léegi kenn jugé wu ko donc dañ ko tuumal loo xam ne daal ba léegi kenn établi ndax dëgg la wala dëgg donc su fekkee kenn jugé wu ko euh, comme Diomaye comme ñeneen ñi kenn jugé wu leen donc munoo wax ne ay fait am na fait amul tant que jugé wuñu ko donc ban fait ngay effacé bu boobaa donc manipulation boobu foofu la nekk. C'est-à-dire que loi d'amnistie, ça ne concerne pas Ousmane Sonko, ça ne concerne pas Diomaye, ça concerne pas les autres prisonniers yu nekk si parce que ba léegi kenn établi les faits vraiment de condamnation su fekkee condamnation am na sax na nañu ne woo effectivement ils sont concernés par ça mais amul fait donc fait la ñuy amnistier du nit. nit la ñuy amnistie boo déggee ñu wax noonu ñoom dañu nekk ci manipulation il grand il parle à la grande masse. Mm-hmm. donc grande masse boobu xëy na moom du comprendre affaire naka la demee dañu ne comme amnistie bi concernant Ousmane Sonko dina génn wala Diomaye dina génn wala nañ ko def noonu rek alors que euh, concerné wu nit boo déggee loi d'amnistie du nit ay jëy mm-hmm. les faits donc faits yooyu est-ce que am na fi si wàllu euh, dans en ce qui concerne Ousmane Sonko en ce concerne Diomaye parce que donc tant que ki juge wala juge jël des dogal ne effectivement ñoom ñoo def bu boobaa bu ko defee bu ko waxee noonu rek bu boobaa mun na nañu fee am na. Mhm. bu boobaa si bu ñëwee rek mun na ko effacer mais loolu amagul donc fee amul donc Ousmane Sonko n'est pas concerné par l'amnistie encore moins disons Diomaye. Mm. alors naka la ko digle woon njiitu mi mujj na amal dialogue ci diirub ñaari fan jaloog euh, bi li ko sababoon mooy ñu fexe ba am date maanaam bis bu ñuy amal élection présidentielle bi ba léegi nag amaaguñu date bi waaye li ñu mën a jàpp ñun mooy daañu ko amal fii ak nawet gi ñu dëgmal pour yow lan moo tax euh, ñu war a toog diir bi yëpp laataa ñuy amal élection. xam nga da nga takk sëy te borom sëy bi nekku fi loolu doy waar de. parce que boo nee da dangee da ngay da ngay da ngay utul date alors que candidat bi conseil constitutionnel arrêté liste bi maanaam les dix neuf candidats ñoom presque ñoom dix sept yi ñëwuñu donc yow ak kan nga waxtaanal waxtaan bu jëm vraiment fixé date élection ñooñu la soxol soxla keneen. parce que normalement su fekkee président dafa bëggoon jël solution ou autre solution par rapport à cela ñoom képp n'est-ce pas les invités ak ak administration électorale bi maanaam waa ministère de l'intérieur mais deful loolu di jël loo xam ñoox dañ leen simpi si si mbir mi maanaam le recalé jël ay religieux jël ay père euh, kii euh, chef de village jël jël ñeneen ñeneen ay pàcc yu bare donc nga nga ne la ñooñu nañ ñëw waxtaan si biiru date alors que ñooñu sont pas concernés ils ne sont pas concernés directement donc loolu mooy problème bi moom maanaam crédibilité euh, dialogue bi posé woon ko parce que boo nee euh, dialogue rek normalement euh, ñi concernés par le dialogue ñoo war a teew mais comme teewuñu donc mën nañu ne dialogue bi vraiment lu mu lu ñu doon séntu si moom président lu mu doon séntu amu ko et d'ailleurs boo déggee waxtaan bi dëmb da ngay wax ni da ngay gis ne ku nekk da ngay rak eh, eh, rak eh, n'est-ce sa kanam. Mm-hmm. parce que euh, ñii recalé ñoom dañu bëgg ñu ñu tëggaat mbir ni euh, ñeneen ñi bëgg vraiment élection jaar yoon balaa balaa le 2 avril président moom nee na euh, dafa bëgg aller au-delà du 2 avril mais tëgg élection avant nawet. Mm-hmm. donc loolu yëpp boo xoolee seen seen wax da xam ni daal benn conscience yi du fa jógee. wala bu jógee foofu dinaa xëy na du arranger n'est-ce bi parce que euh, normalement dañu war nekk dans les délais maanaam avant le 2 avril Sénégal war na am président bu bees donc euh, pour mu am président bu bees il faut que président moom euh, choisir date boo xam ne daal mu euh, campagne mun nañu ko def premier tour ak deuxième tour et puis ñu terminer n'est-ce pas par le, le par vote. Mm. donc loolu bu ko defee. Mm-hmm. xëy Sénégal mun na génne si guutal. ci gi leeral leeralaat na leeralaat na ni euh, dina joxe lenge ne kon yàkkamti na sax euh, le deux mu daal di euh, jébbal réew mi ceneen xaw ma nag kan lay doon naka nga yaakaar ni moom la ñu war a gérer transition boobu maanaam période d'après le deux bi. ah président na yàkkamti na de mais man li ma li ma gis mooy yàkkamti bi xëy na yeex na lool yàkkamti président yeex na lool lool lool bi jéggi dayoo. parce que su fekkee moom dafa kanti dem normalement dafa war a choisir une date le plus vite possible or lu muy def ni depuis euh, conseil constitutionnel euh, jox ko euh, disons prérogative am depuis lors mu ngi de temps presque on a perdu une semaine donc euh, on va encore perdre une autre semaine donc loolu yëpp su fekkee moom dafa bëgg dem normalement waru perdre temps yi mel noonu normalement bi ko conseil constitutionnel ne ko eh, choisir les dates daf ko war choisir parce que moom xam na ne euh, code électoral daf ko tënk donc euh, xam na ban période la war a fixé pour que ñu nekk dans les délais mais apparemment président de la république buggul génne pouvoir bi buggul jóge ci pouvoir bi avant le avril parce que boo déggee mu ne ne bugg na tëgg élection yi avant avant nawet mais nawet nawet kañ la parce que yow boo jëlee euh, réalité dérèglement climatique kenn xamatul vraiment même sedd Sénégal tey mais man yëguma seddaay ñeneen yëguñu seddaay c'est-à-dire loolu yëpp lu ko andi mooy changement climatique. Hmm. donc changement climatique boo ko sóoraale mais au fond euh, nawet bi kañ lay commencé kenn xamul. Hmm. kenn xamul donc boo nee da ngay def da ngay tëj élection avant élection yaa ngi si lëndëm lëndëm yaa ngi yaa ngi dugal ni ñi si lëndëm lëndëm. Hmm. or moom puisque da nga dafa yàkkamti eh, joxe lenge keneen mais euh, ngir yàlla moom tamit na gaaw parce que euh, vraiment. Euh, su fekkee dafa yàkkamti yàkkamti bi daal vraiment dafa rax euh, lu yéex lool lool lool. Hmm, ndax yëfi dina gaaw parce que ci biir waxtaan wi démb euh, ak barki démb nemmeeku nañ ni am na ci ay acteurs yi nga xamante ne sàkk nañu ñu daal di reprendre processus bi ñu ñu duppee candidat spolié ndax yaakaar nga ni mën nañ ca yegg ak lan mooy nekk sor ñi nga xamante ne dañ leen valider. man dama ragal sax ñu yegg foofu avec la bénédiction du président parce que euh, ñooñu ñooñu ne àndal depuis le début maanaam Karim bu nekk fala Qatar euh, donc euh, muy jox ordre fii Sénégal donc kooku kooku la àndal vraiment pour tëgg mbir bi yëpp lépp lépp Sénégal di di vivre ni Karim Wade loxoom n'est-ce pas génn si bu ma nee Karim Wade rek Pérez laa wax. Hmm. mooy tax muy wax. Mm-hmm. donc euh, euh, dama ragal ñooñu am gain de cause xam nga lu sax parce que comme président moom dafa nekk perspective wu euh, être là au-delà du 2 avril. donc boo nekkee fii au-delà du 2 avril yaa ngi créer benn situation boo xam ne inédite. Mm-hmm. bu boobaa est-ce que conseil constitutionnel ne comme yow nekkatoo président à président assemblée nationale moo toog su fekkee président assemblée moo toog est-ce que dafa tëggaat n'est-ce pas élection yi wala dafay continuer processus bi boobu rek conseil constitutionnel n'est-ce pas moo koy joxe su hmm. fekkee dafa ne ñu tëggaat n'est-ce pas processus yi ça veut dire que ñoom am nañu gain de cause donc loolu sama xel bu gàtt je pense que président loolu la bëgg dafa bëgg a tegaat n'est-ce élection yi avec la bénédiction n'est-ce pas des libéraux moo tax ma ne donc ñoom aujourd'hui euh, au niveau de l'Assemblée nationale ñoo en majorité bi bu ñu lëkkaloo du ñu bëgg rek dañ koy am donc euh, maintenant euh, loolu bu amee ça veut dire que injustice euh, dikk na injustice ba dikk na puisque euh, conseil constitutionnel dafa arrêté la liste des 19 donc ñoom ñëpp day nermeelu donc euh, bu ko tëgaatee c'est même pas sûr que ñooñu dina dañuy bokkaat du ñu bokkaat ñoom yëpp lu lu wóor te wóor boo moytuwul dañuy lijjante bu boobaa euh, dossier Diomaye Faye lijjante n'est-ce pas dossier euh, disons Ousmane Sonko lijjante ak dossier ñoom ñëpp c'est-à-dire lu rax ci patriote du bokk bu ñu tëgaatee n'est-ce pas élection parce que ñoom foofu lañu jëm loolu la ñu bëgg a ñoom donc mbir mi moo tax ma ne dialogue bi rek. am na lu mu bëgg a valider euh, valider n'est-ce pas euh, décision président de la République tëgaat élection au-delà du deux et bu ko tëgaatee au-delà du deux boo moytul euh, dama ragal euh, vraiment ñu reprendre à mm, euh, dégg nañ ci intervention ci diirub dialogue bi waaye xëy na bokk na ci gën a fës yi ñi ñi gën a euh, commenté euh, kàddu yi nga xamante ne ki fa toogaloon jàngo bi muy église catholique bi yëkkati na ko naka nga ko jàngatee position boobu. waaw je pense que église bi Sénégal bu nekkee si guuta bu nekkee si crise communication bi dafa leer nañ moom nekkul fii di laam-laamee. Euh, loolu mun nañu ko seede donc communication bu leer la mu sa def te communication bu leer boobu moom la moom la def demb donc euh, dafa ne euh, nañu tëgga pardon nañu continuer n'est-ce pas processus bi deuxièmement ba léegi mun nañu sauver n'est-ce pas processus bi loolu lu lu lu jor lu jara solo deuxième troisièmement nañu respecté n'est-ce pas euh, conseil constitutionnel maanaam suñu république donc euh, loolu boo ko déggee wax wax bu ku dëggu la loo xam ne daal vraiment nekk fii di par parloo du di calculer yeneen yi non moom moom euh, dëgg la gis mu am waa ko noonu je pense que ñu ñu bëgg a dégg ñooñu mën nañu d'accord ak disons lii jàngo wax Euh, euh, euh, église bi wax normalement foofu la ñuy xaar suñu suñu suñu marabu yi foofu la xaar nest suñu kilifa diine yi. Mmh. nekk fii di lam-lamee waaye def na ko def defal nii defal non non def dañu war a jaar si digg bi que constitution moo ne élection dañ ko war a tëgg avant le 2 avril constitution moo ne le 2 avril président de la république Macky Sall dootul nekk président Sénégal dafa war a jëbal n'est-ce pas donc euh, loolu la euh, disons église rappelé te normalement ku ku ku ku nekk waxkat dëgg loolu nga war a wax yaa ngi dégg mais boo waxee leneen nga xam ne la yow la yaa yow engagé mais li constitution bi wax vraiment dafa leer nañ c'est pourquoi encore une fois de plus il faut se féliciter de la position de l'église dafa nekk position boo xam ne vraiment euh, nit ñi naw nañ ko parce que moom du nekk si laam laam mais moom si digg bi lay jaar donc foofu la ñuy xaar vraiment euh, nitu diine yi donc wala euh, foofu lañ ñu leen xaaree quoi mais su fekkee dañuy def leneen vraiment opinion bi tamit ñu ngi ñu ngi observer mm. xam naa ku ku wax dëgg ku dul wax dëgg Mhm. yow ngay taskatu xibaar euh, di tamit analyse politique euh, Bakary Domingo Mané j'allais dire même doyen ñu ngi lay gërëm bu baax a baax di la sant. maa ngi leen fekk baax a baax di la sant. maa ngi leen a baax